yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu juróom fukkeelu njàngale mi ak ñaar Yesu Christ mooy sët bi yàlla dige nanu bamtu lépp lu ñu jàng ci Yesu Christ benn kan moo xam kañ la bésub àtte bi yàlla baay bi rekk moo ko xam ñaar yan firnde ñooy feeñ balaa bésub àtte bi dina am ay xeex ay yëngu-yëngu suuf ak xiif ñett kan mooy ñëw ngir atte àddina si yéesu mooy ñëw ak ay malakaam ngir atte àddina si ñeent ñan ñooy xar yi ñooy taalibe yeesu yi ñooy ñi nangu yeesu ni seen musalkat ci kanamu nit ñi juróom ñan ñooy bëy yi ñooy ñi weddi ne mooy yoon wi te mooy musalkat bi juróom kan moo am sañ-sañu may nu dund jeex fa yàlla wala tàbbil nu safara ba faaw mooy doomu nit ki juróom lu tax ay nit gëm ne yàlla dina leen ubbil bunt bi ndaxte def nañu ay jëf yu baax yu bare ci turu yàlla juróom-ñett ndax mbind mu sell mi wax na ne sunu jëf yu baax sunu ëppee sunu jëf yu bon dinañu dugg ci nguuru yàlla. déedéet boo defee jëf yu baax yu bare te am benn bakkaar rek yàlla du la ko baal say jëf yu baax yépp mënuñu fay sa benn bakkaar jëf ju baax mënul faxas bàkkaar yàlla du la nangu li fekk fayuloo say bàkkaar mbind mu sell mi nee na ci yowaana saar benn aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent xool leen kii mooy mboteem yàlla mi ñu nar ngir dind bakaaru àddina mbind mu sell ci benn korent saar juróom aaye juróom ñaar ndaxte kirist deyal nanu ca bant ba mel ne mbotey mu nuy rendi jébbal ko yàlla ca màggalu bésu jéggi ba nu mu sell mi nee na ci yawut yi saar juróom-ñaar aaya ñaar fukk ak juróom benn ak aaya ñaar fukk juróom-ñaar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 mbind mu sell mi nee na ci ñaar korent saar juróom aaya ñaar fukk ak benn kirist mi musula def bàkkaar yàlla def na ko bàkkaar ci sunu wàll ngir ci sunu bokk ci moom nu mën a doon njubteg yàlla bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi kirist mooy sët bi yàlla dige nettali bi mu ngi aju ci ni Yesu Kirist nekkee sët bi yàlla dige yàlla def na lu bare ngir waa Israël jëf yooyu yépp ay misaal la woon ngir wone li mu nar a defal nit ñi jaare ko ci sët bi mu dige Yesu Kirist mooy mbotem yàlla ci yoon waa Israël mala bi ñuy saraxe waru woon a am benn sikk sax mbind mi nee na leen kuuy wala sikket mu foq benn te amul sikk noonu la sarax bi jot bàkkaari nit ñi warul ame benn bàkkaar amul menn mala mu mun a fay bàkkaari nit ki fàttaliku leen bi yàlla di sant ibrahima mu saraxee jenn doomam ji mu am ak saara ibrahima ku gëmoon la te naroon na rey isaaxa far yàlla jox am kuuy am kuuy moo wuutu isaaxa ngir doon sarax si ni yàlla joxe am kuy mu wuutu isaaxa noonu la joxe wàccee ab sarax ngir mu wuutu nu yeesu kirist dee ci bant bi ngir sunuy bàkkaar mbind mi nee na benn bés Yaxya gisoon na yeesu muy jëm si ci moom mu ne xool leen kii mooy mbotem yàlla mi ñu nar rey ngir dind bàkkaaru àddina Yaxya woowe na yeesu yàlla ndaxte yeesu moo war a fay bàkkaari nit ñi yéesu amul bàkkaar yeesu moo gën a mat xar mu sikkul dara kon mën nañu woowee yeesu mbotem yàlla ndax moo nekkoon sarax bi amul woon bàkkaar bi ñu joxe ngir sunuy bàkkaar yeesu kirist mooy sunu xaru bésu jéggi ba fàttaliku leen bi yàlla àttee waa misra teg leen ay musiba musiba ma mooy ba malaakam deema dugge ci kër gu nekk rey na taaw bu góor ba muy nit di mala yàlla wax waa Israël ñu rey xar ci kër gu nekk loolu lañu tuddee xaru jéggi ba ñu jël deretu xar ma taxal ko ca kaw bunti kër ya ak ca wet ya guddi googu ba malaaka deema ñëwee misira gis na deret ca buntu kër yi waa Israël yi mu romb mbind mi nee na guddi googu man aji sax ji dinaa jaar ci biir réew misra te dinaa fàdd taawi réew misra yépp dale ko ci nit ñi ba ci mala yi te it dina mbugal yàllay misra yépp deret ji nekk ci kër yi ngeen dëkk nag dina doon xamukaay ngir yéen bu ma gisee deret ji dinaa leen teggi ba menn musiba du leen laal bu may fàdd réew misra mbind mi nee na ndaxte kirist deewal nañu ca bant ba mel ni mbotee mu ñuy rendi jébal ko yàlla ca màggalu bésu jéggi ba naka la yeesu niroog xarum bésu jéggi ba yàlla àtte na waa misira kon yàlla dina àtte bépp bàkkaarkat waroon nañu rey am xar mu wuutu taaw bi waroon a dee kon am na ku war a dee ngir wuutunu Yesu Christ dee ngir wutunu xar bi yawut yi doon saraxe warul woon am benn sikk kon sarax si jot sunuy bàkkaar warul woon am benn bàkkaar yéesu Christ amul bàkkaar malakam deema nangu woon na deretu xar ma noonu yàlla nangu na deretu yeesu malaaka deema jéggi na kër ya ba mu gisee deretu xar ya attewul nit ñooñu kon yàlla dinañu jéggi bu gisee deretu yéesu ci sunu xol su ko defee yàlla duñu atte xaru jéggi ba ab misaalu yeesu mi dee ngir nun la kon wax nañu ne yéesu mooy sunu xaru ba su jéggi yeesu kirist mooy sunu sëriñ bu mag sëriñ bu mag bi ci waa israyil waroon na saraxe mala ngir bàkkaaram moom ci boppam ak bàkkaari waa Israël yépp waroon na saraxe mala at mu nekk bu ñu reyee mala mi ba noppi sëriñ bu mag bi dafa yóbbu deret ji ci bërëb bu sell ba sell ci këru yàlla gi foofu mu wis deret bi ci jégalukaay ba su ko defee yàlla dina won yërmande waa Israël yépp tollale leen sëriñ bu mag bi ci waa Israël ak Yesu Christ sunu sëriñ sëriñ bu mag bi war na saraxe ndax ay bàkkaaram te yéesu amul bàkkaar sëriñ bu mag bi doon na saraxe am mala ndax bàkkaari nit ñi waaye yéesu moom joxe na bakkanam ngir bàkkaari nit ñi sëriñ bu mag bi waroon na saraxe at bu nekk waaye yeesu moom joxe na bakkanam benn yoon kon soxlaatul kenn di saraxe bala ngir ay bàkkaaram sëriñ bu mag bi rek moo mënoon dugg ci bërëb bu sell ba sell ba ci kër yàlla ga ngir ràmm waa Israël. waaye yeesu moom dem na fa kanam yàlla ca kaw asamaan ngir ràmm nit ñi. bu sëriñ bu mag bi deewaan beneen sëriñ moo koy wuutu. waaye yeesu mu ngi dund ba faw te mooy sunu sëriñ bu mag ba faw sëriñ bu mag bi ab misaalu sëriñ bi waroon na ñëw lawoon sëriñ bu mag bu wóor bi di Yesu Christ Yesu Christ mooy sunu sëriñ bu mag ndate yéesu amul bakkaar yéesu joxe na bakkanam Yesu benn sarax rek la soxla woona def yéesu dem na fakanam kanam yàlla ca kaw asamaan ngir ràmmu nit ñi yéesu mu ngi dund ba te mooy sunu sëriñ bu mag ba faw mbind mi nee kon nag yéesu mooy sëriñ bu mag bi ñu soxla dafa sell du def lu bon du taq bàkkaar bokkul dara ak bàkkaarkat yi te yéege nañu ko fa yàlla ñu niroowul ak yeneen sëriñ yu mag yi soxlawul di def bés bu set ay saraxi mala ngir bàkkaari boppam jëkk teg ca yooyu mbooloo mi yeesu def na sarax benn yoon ba faw ngir dind bàkkaar yi bi muy joxe bakkanam mbind mi nee na noonu kirist dugg na benn yoon ba ca bërëb bu sell ba dugufa ak deretu siket yi ak yu yëkk yi waaye mu ngi dugaale ak deretu boppam te indil nanu noonu njot gu amul ab yàlla dina la jàppe ni ku jub fa kanamam ndax sa ngëm yàlla dafa jub yàlla mënul fas kolore ak ku jubul nit jubul bàkkaarkat la kon kolore amul diggante yàlla ak nit waaye yeesu lañu fayee bakkaar yi nit ñi moom mi sarax bi amul bakkaar ndegam fay nañu bakkaar yi lan moo desiti ngir fasaat kolere gi amoon diggante nit ak yàlla bind nañu ci téere bu sell bi ibrahima gëm na yàlla te yàlla jàppee ngëmam ni njub loolu won nañu ne li ibrahima gëm moo tax yàlla woowee ko ku jub fa foofu la kolere soog am diggante yàlla ak ibrahima yàlla jàppee na Ibrahima ku jub ndaxte Ibrahima gëmoon na bépp kàddug yàlla loolu mooy gëm yàlla te gëm ne bépp kàddug yàlla dëgg la téere bu sell bi nee na Ibrahima gëm na yàlla te yàlla jàppee ngëmam ni njub waaye loolu lañu bind ne yàlla jagleel na ko njub du Ibrahima rek moom wax ji nun itam ci wax jooju lañu bokk te yàlla dinañu jagleel njub nun ñi gëm yàlla mi dekkal yeesu sunu borom ndaxte yàlla jébbale na ko ngir sunuy tooñ dekkal ko ngir atte jub loolu won nanu ne nun itam war nañu gëm yàlla ngir mu jàppe jub fa kanamam war nañu gëm yéesu Christ mooy doomu yàlla mooy sarax bi amul bàkkaar bi jot sunuy bàkkaar war nañu gëm ne dee na te dekki na ngir fay sunuy bàkkaar ba mu mat fa yàlla bu nu gëmee yàlla yàlla dina nu jàppee ni nu jub mënuñu def dara ba jub ndaxte bàkkaarkat lañu mbind mi nee na kirist mi musula def bàkkaar yàlla def na ko bàkkaar ci sunu wàll ngir ci sunu bokk ci moom nu mën a doon teg yàlla noonu képp ku gëm ne lépp lu yàlla wax dëgg la yàlla dina la jàppee ni ku fa kanamam ndax sëngam su ko defee kóllëre dox sa diggante ak yàlla fii la nettali bi yem am na ay laaj benn lu tax Yesu Christ nekk mbotem yàlla. yéesu mooy mbotem yàlla ndax moo nekkoon sarax bi amul woon bàkkaar bi ñu joxe ngir sunuy bàkkaar. ñaar lu tax yéesu mel ni mbotem ba su yàlla dinañu jéggi bu gisee ne deretu yeesu na sunuy bàkkaar ñett lu tax yéesu nekk sëriñ bu mag bi yéesu dem na fa yàlla ci asamaan ngir ràmm nu joxe na boppam doon sarax bu amul bàkkaar yeesu mu ngi dund ba faaw te mooy sunu sëriñ bu mag ñeent kan la yàlla jàppee ni ku jub yàlla dina jàppee ni ku jub képp ku gëm ne mënoo def dara ba fay say bàkkaar nga gëm itam ne yàlla moo yónni yeesu di sët bi mu digee ngir mu doon sarax bi amul bàkkaar yeesu fay na bàkkaar nit ñi ba mu mat fa yàlla yan melukaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla bëggul bàkkaar yàlla du nangu bàkkaar jege ko bàkkaar dañu koy fay yàlla dee lay feye ko bàkkaar sarax bu mat rekk a mën a fay sunuy bàkkaar gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla ci yërmandeem joxe na yoon ngir nu am ak moom jàmm ak dund jeex ba faw yàlla joxe na lu nu wuutu yéesu dee na ngir sunuy bàkkaar yeesu kirist mooy sunu sëriñ bu mag yàlla dafa jub jubunu ci sunuy pexey bopp bàkkaarkat lañu bu nu gëmee ne yeesu mooy sunu musalkat dinañu jàppee ni nu jub fees na sunuy bàkkaar su ko defee dinañu mën a am jàmm ak yàlla yàlla lu mu digee def ko yàlla dig na aadama ne kenn ci sëti jigéen ji dina daan seytaane yéesu daan na seytaane bi mu deewee ngir fay sunuy bàkkaar léegi nit mën na amaat kolere ak yàlla yàlla dig na Ibrahima ne dina jaare ci kenn ci ay sëtam ngir barkeel nit ñëpp ci àddina nit ñëpp ci àddina barkeel nañu bu ñu nangoo yeesu ni seen musalkat ak seen borom mbokk yi lii moo tënk sunu nettali yi yàlla moo tëraloon lii lépp ngir mësal nu jaare ko ci Yesu Christ mbind mu sell mi nee na ndaxte yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jën doomam ji mu am képp ngir képp ku ko gëm am dund gu jeex te doo sànku mukk mbokk yi léegi nag seen ngëm moo ci des na leen yàlla barkeel amiin